Sadio Ousmane Diédhiou lay wuyoo étudiant bi boobee feebaroon bañ doon ko majaan lal moom nag kon yegg na ci Bordeaux nekki démb ba ay xibaar xam ne sax ñu ngi ko tàmbalee fàcc ak it nag alal ju tàkku yi nga xam ne jotoon nañ ko ko dajaleel loolee nak kuréel gi ñuy duppee collectif ELP ne nañu kon daañu ko dugal fa mu war fa mu war a dugg kon ñi dal di ci déglu ki nga xamante ni moom moo di Maha Damfaxa li muy ay kàddum bi coow li jàllee ñu ngi leen di rassurer bu baax ni que bépp xaalis boo xam ni collecté nañ ko muy dërëmu sénégalais wala ñaar dërëm boo xam ni jot nañ ko récupérer ngir pour SOD incha allah dina jëm ci ki nga xamante ni si moom mooy sa xaalis bi am na ñett pàcc yuñ ko xaaj bi ci jëkk mooy dafa am benn versement boo xam ni directement ci CHU de Bordeaux lañ ko def beneen bi mooy xaalis bi nga xam te ni si moom lañ collecté boobu directement ci compte personnelu SOD lañ ko dugal te c'est destiné à la prise en charge ak le suivi de SOD parce que faj bi yemul rek ci greffe mais dafa am leneen loo xam ni moo ko ëmb nekk ci ginnaaw mënuñu wax exactement li lay daw parce que léegi nii def nañ benn simulation wax nañ ni dañu xaymaagum rek toll nañ ci 176 millions ci lu muy soxla par rapport ak prise en charge